<laughs> doy na waa yàlla di def rek yàlla àtte alors ñu ñëw ci lettre bi nga xamante ni président Bassirou Diomaye Faye adressé na ko ñi nga xamante ni ñooy euh, liggéey euh, ci euh, fonctionnaire de l'État ñoom nag la leen njiitu réew mi wax di président Bassirou Diomaye Faye père nee na leen woo naa leen ci njub tey ginnaaw bi nga xam sant na leen bu pare gërëm leen woo na leen ci njub nee na ak li nga xamante ni moo di rupture ak transparence la leen di woo mu nekk lettre boo xamante ni depuis commencé di jur polémique mu nekk lettre boo xamante nee na moom woo na képp koo xamante ni daal sa loxo set na pour nga ñëw liggéey euh, nga daal di ñëw bokk ak moom liggéey bi tey tamit lépp loo xamante ni tamit leeral lool dina ko war a mën a leeral mu nekk kàddu yoo xamante ni Bassirou Diomaye fay son excellence moo ko daal di àddu ñu bàyyi la nga sa jàngat waaw xam nga man li ma ci xalaat man sax mm-hmm. dama waroon teel a waaw parce que dama yore projet boo xam ne nii. Mm-hmm. billaahi wallaahi talaahi ñetti waatooy boo ko waajal rek dox na. macha mm-hmm. jeunes yu bari daañu liggéey buñ ko tegee. sa projet bi. waaw. lan mooy projet bi yàgg naa ko wax. Mm-hmm. ci plateforme yi. mais ba léegi taseeguma kilifa goo xam ne nii. vraiment dinaa ci kii ki ma bëggoon nag jàkkaarlool mooy Sonko ci boppam nga xam ne nii ku bari la ci li muy def. waaw ndax xam naa ni bu ñu jàkkaarloo. loolu moom dana mën a sotti te ndaw ñee ko moom. Sénégal di ci gañe ay milliards billahi wallahi taalaahi ñaareelu yoon baa nga noonu ma koy kii. waaw waaw ma yàkkamti koo gis. beneen bi moom. Mm-hmm. dëgg ko wér wax wér péng la wax. Mm-hmm. parce que nag senegal buñ ko càmbaree ci wàllu liggéey wax dëgg fa yàlla ñoo ngi tardé reculer parce que politique bi dafa dema dema dema dem ba dominer. Mm-hmm. xam-xam bi ñu waroon jóor ci euh, penc bi pour nit ñi mën a am liggéey. Mm. gannaaw loolu jote ne boo demee léegi fi nekk fu ne ci ndakaaru ñoo ngi ko def grand place te waxuñu dara lu dul politique. politique nag lu mu la mayul da koy jël. Mm-hmm. moom noonu la mel moom dafa fiir kenn du ko booleeg lenn doo xam ne nii lu am fulla la sax boo ko ci yóbbee boo boo boo moytuwul nga ñàkk lool. Uh-huh. waaw man daal li mu wax ànd naa ci tey ànd naa ci ëllëg. Diomaye dafa ñaax nit ñi bu ko kenn jëlee ni dafay jaay nit ñi lii dafa ñaax nit ñi pour ñu liggéey la tax mu wax ko nag bu ñu xoolee budget bi ni mu toll te Sénégal ci diggante bi waroon ñu liggéey te toll foo xam ne fu kawe la mhm. yeneen moroomam yi sax ñoo koy bëgg a kon nag laaj na mu ñaaxaat nit ñi parce que bu ñu xoolee kees nga xam ne dara nekkatu fi dégg li ñu yore woon as tuut sax mhm. pasar pasaree nañ ko ñii jàpp ci ay kii te boo seetaan benn avion boo xam ne dafa dem Suisse bi mu demee Suisse mu wàcc fa ñu wàcce ay valise yu bari mm-hmm. kiy commenté daan ne valise yi ngeen di gis yëpp xaalis la kon ñoo ngi roppet xaalis bi di yóbbu ba Suisse mm-hmm. lu toll ni loolu ba pare dëkk bi ñu jege fii bi Bissau mm-hmm. président bi wàcc na fa am ay valise yoo xam ne bi mu wàccee dañ ko gunge tuuti am ay valise yu jaar ci ginnaaw valise yu bari bari bari ñoo ngi ko jaar di ko puus di ko yóbbu am na ci dégg li moo wax de ni ñu ne xaw ma daf ko doon indil président ba parce que moom moo koy soutenir ci politique am. Hmm. yoo koy boo demee ba am jël di soutenir jàmbur yoo xam ne dëkku fi. mu nga ci réew boo xam ne nii peut-être jege na la. Hmm. xëy na làkk ñàkkul loo xam ne nii dox na seen diggante ba valise yooyu di fa wàcc. Hmm. donc yooyu yëpp day indi xëy ni mii ne ci nit. donc loolu nag lu ñu jar a xool jar ko càmbar. ñii seet nag nañ dem ba Guinée Bissau bii. ñàkkul luñ fa dugal denc ko fa. Mbadu waaw kooku moom maa ko wax. <laughs> saa ñu may la joxe sa jàngat ci lettre président bi. bon bon mooy li amoon la ñuy li ñuy wax sànq di ko ñaawlu ci PRODAC. Mm-hmm. programme tomaine euh, agricole communautaire waroon a xëyloo. Mm-hmm. trois cent mille. emplois jeunes. Mm-hmm. ginnaaw bi ñu gis nit ñi di mbëkk désert bi di dem. trois cent mille yooyu bu ñu leen xëyloo woon ñuy xëy di wàcc. dana am ku ñawlu kii dana daaj lu lal. Mhm. kii dana kii dana. ci seen ginnaaw dana amaat yeneen emploi yoo xam ne. Mhm. ña nga fay am ña ngay dund. Mhm. dama ci Médina Rue ci booy dugg rek angle Blaise Diagne xam sama benn baay bu ñuy wax Ndoye yor atelier. xumboon lool soriwu xumboon lool Baye Diop xumboon lool. jamono yee nga xam ne ci la. Nicaragua la xaw ma luñ koy wax ak yooyu di am maanaam atlé bi dafa dem ba déserté gisatoo fa kenn waaw Nicaragua dafa jooloo waaw loolu bu amee ñu amoon programme boo xam ne am na nii bu ca nit faatoo te waroon a am xëy ku ca dee boo ko sàgganee yow am nga ci responsabilité mm-hmm. loolu bu fekkee ne am na ak yeneen programme yoo xam ne ñi ngi fi amaat yeneen hôpital yoo xam ne nit ñi ñi ngi euh, faatu par négligence médicale mm-hmm. nga mën a dem ci euh, privé. Mhm. di fa exercer bu nit ñëwee taxaw tey soxla hôpital nga di ko doxloo di ko doxaat am na sama ndey yoo xam ne sama rakk yaay faatu na par loolu ci hôpital bi lañ lañ ñu mujj yebale ci benn clinique mu dem fa. ñu ne mhm. du fay par bis day fayandoo douse jours xaw ma euh, quinze jours am na lu mu ko ci wax daal yaakaar naa bu dul douze douze laa gën a jàpp. ni mu yàggee noonu ñu teg ko ñetti fan la fa def xaw ma ñeent faatu pour xaalis boobu te dañ la ne woon boo ko fayee bu fekkee ne kii nga tëddoo fi lu mat loolu booy génn dañ la koy joxaat. Mhm. par garantie quoi maanaam en gros ngay fay. Mhm. lii am na Sénégal te bi mu génnee ba nag ni xaalis boobu jotuñ ci loolu lan lay doon. Mm. tey nga waroon a mën a dénoncer loolu ci jamono boobu. dénoncé nañ lu ne wax nañ ko mujjul fenn tey bu doon ci fii ñu protéger euh, les lanceurs d'alerte. Hmm. tey da nga am loo loo xam ne da nga am gain de cause ci loolu mën naa bañ a am. tey docteur bi ko wóor ne ko hmm. man bu yàggul dem naa def fi soog bu yam li ma sol sax laa soloon far sama fii la visière bi laal parce que benn moto dafa benn oto dafa taxaw ci digg lëndëm gi. Hmm. yaa ngi jóge ville. boo rombee camp militaire bi fii 7TV fii 7TV nekk foofu mu am benn voiture sport boo xam ne norme yu déjà norme yu Sénégal rek guddi googu rek waroo di daw. Mhm. voiture sport. Mhm. jóg ñu vrëm ma def nii pour ba ko mu jàll gaaw naa mënoon naa continuer mais nee nii ndekete bi may defee nii rek maa ngi yem ci benn oto mhm. taxaw ci lëndëm gi. Oh. soit ma dellu fee oto yi de ray ma walla ma freiné mën na ma sax jël ci. suuf parce que dafa kawe. Mm-hmm. wala mu nga daanu gaañu. ma yemale limiter les dégâts jël oto bi taxaw ci kii bi tegul sax triangle fi ñu taxaw nga woote sapeur woo polis ñuy traine kenn ñëwul. mu mujj woo sam benn xarit benn capitaine moom mu wool gendarmerie ñu doog ñëw. bi ñëwee. Uh-huh. constaté ma. yàlla dogal fenn gaañu fii rek la parce que mënu ma a wax bu mhm. baax ak mhm. yooyu mais ma jékki-jékki affaire bi di metti comme pas possible hôpital bu ñu la yóbbu ñu yóbbu ma wookaam ci centre de santé bi la xam ma naa ñu ne mhm. ñoom mënuñ ko def naa dem IASO dem IASO ku correct ñëw na ma gis nga nii ñii ñëpp fii dafa xat ñu war maa yóbbu CTO ma ne te xam naa ne boo demee CTO kiiwul principal ngay mujje ma ne ko far ma yóbbu principal parce que fa dëkk sori yu fa ñu yóbbu ma ñu baax sapeur yi wax dëgg yàlla bi ma demee accueil bi macha allah baax na. Mhm. mais bi ma taxawee pour ñu jublu ci man ñu pare war a woo nga xam ne mooy kii bi kiy def euh, yaram bi. Euh, ki xaw ma nu ñu koy waxeeti am na nu mu tudd médecin bi bu mu ko xoolee. Mhm. ORL ok ORL bu mu ko xoolee ne ma du fekk dama xaw âge bi dafa may daf ma yab. Mm. ma jàpp ne loolu mu ne ma du moom soog bi la mais mën naa am mu kii jëlal garab sàngam sàngam mais après jëndal lii nga dem nga def euh, yërem mm-hmm. yërem bi dem naa ñu jox ma rendez-vous toog naa deux mois et quelque beneen li ci gën a dee mooy benn garab boo xam ne mm-hmm. ça coûte trente cinq mille mm-hmm. manqué ci dëkk bi amut ba dañ ne ma jëndi ci raison yi ma woote Touba ndek waa Touba nga koy wër mujjuma ko am équivalent bi laa am te booboo ko war a gën a yomb maa ngi ko jëndee presque soixante mille mille francs lañ ma delloo. Mhm. yii yëpp yoo tegle man tey yàlla ma suturaal ma jékki-jékki yëgatuma dara. parce que suñ borom moom nu ne la mën a def. Mhm. xaj na pour sax ak dénoncé bi ma koy dénoncé. am na ñoo